asalaamaaleykum mbokk àdduna yi ñuy seetaan yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew tey ñu ngi am ci ak contentement ñëw fii ci golf fi nga xam ne mooy kër Balla Gaye macha allah li nu fi tax a daje nag waaw ah, dafay def safar comme ni ko murid yëpp di defee comme ni ko jullit yëpp di defee waaye comme ni ko taalib yëpp di defee dañ koy bàyyi mun di yokk mbokk internet yi ñu seetaan nuyu waa senegal nuyu waa biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye nuyu la presse nationale ak internet lay ziar maa lay nuyu di la ziar di nuyu àdduna di nuyu sénégalais di ñaan yàlla bu baax di ñaan seen Mountakha Mbacké mu yàgg loolu te bàyyi kenn ak mbokk internet yi ñu fi taw dajale fi nuyu suñu mag Lirou Diane baax a nuyu suñu frère aussi tamit Ousmane yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla nañ koy gën a mën ak képp ki nga xamante ne am nañ def ko moo waral ñu koy def ko. noonu kon Balla mu mel ni bii mooy ñaata yoon ñaata at nga koy def. moom mënatu ko ko lim parce que bëri na <laughs> ah, yàgg naa ko def. lan mooy initiative bi parce que Balla murid la parce que Balla julli la parce que Baye Balla Baye Fall la gis na ni murid yëpp ñu ngi koy def Sëñ Tuubaa ko santaane moo tax Balla di ko def. xam nga même bu même ñu dul murid sax mu ko def parce que tey réew mi xool na foo xamante ne ñu laay mesen ñëpp benn lañu nga gis koo xam ne rek ki nga xamante ne mooy Serigne Touba am yéene ci ka waa kër Sëñ moom Alaaji Maalik Limaamu Laay kon ni ko ñëpp defee rek bokk ma gàmm jotee màggal jotee dara jotee rek kenn ku ne ren yéene pour def dem en tant que murid di ziare suñu sëriñ si na yàlla loolu moo ñu ko def mu nekk taalibu Sëriñ Tuubaa aussi tamit mais bala ñu daan gis ma ko daan def ci beneen facette takk ndigg yor këll bi topp tal yi di majal parce que ku ne xam ne bu ne murit ñu ni ndigal waaye bu ne Baay Faal ñu ni majal tey bala def ko ci beneen facette lu waral loolu waaw xam nga boo jógee si combat pour nga créer ay avantage day bëri te àdduna toolu tuuti foo xamante yu ci bëri da nga koy xaw a éviter mais nga def li la war rek l'important mooy lii ñuy def nii def nañ ko war discrètement te bu ma koy def sax man nekk ma fi woon dama génn yàlla dogal na ma programme nag li may programme ba pare après ci laay doog ñëw nii loolu moo tax ñu defee ko si façon boobu. ñaata na nga rey. ah def nañ li ñu war rek. léegi naa rey nga ñetti nag. non def nañ li ñu war rek. comme ku daan tey genre dañ daan def. Euh, dañ ko doon def chaque une semaine sa jour ñu rey nag kon ay ñeenti nag ñeenti loolu problème mais def nañ ko benn rek mais sant nañ ci yàlla. yaa ngi fas yéene waaj a màggal incha allah. ah waaw incha allah bu neex nii nga nii nga koy nii nga koy defee fii ci Touba. fii ci Dakar noonu nga koy defee Touba boo àggee danga koy simple wala da nga koy da koy da nga koy médiatiser. loolu. maanaam comme da nga daan yor këll bi màjjal. cëfër cëfër ñëpp xam ne Balla Sadex la tey dajee takrib ndax Touba danga koy def wii guloo nga koy màggale. wala nan nga ko fas yéene yoor yoor la li la war ngay def li sëñ bi rek ngay def pare def la mais jàpp naa daal màggal yoor yoor la te buñ jo lépp boo ko defee farata nga safante rek say sëriñ say am di jàmm di nuyu suma sëriñ sëñ Aziz mu sëñ Bas Baara maa ngi koy siyaare baa di nuyu nuyu waa Guy Mbind yëpp ok Omar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare dañu gis safar gi boo ko doon def da daa def deux jours wala trois jours. une semaine wala semaine lay doon. lan moo waral tey nga tënk ko ci benn bis def ko lépp mu wàcc la lan la quoi. waaw waaw xam nga léegi soxla yi dafa bëri kenn ku nekk da ngay dox sa yitte bu njëkk jot mënoon naa yaatu mais àdduna nag lu muy gën di dox rek. koy gën a changé ay stratégie yoo xamante yu baax la li ngay dajale def ñetti fan wala ñeenti fan mu woo def ci benn fan mm-hmm. donc xëy na beneen bi di ñëw mun na gën a doon boo xamante ne benn fan lay doon mais day gën a yaatu ak nawet beeg yooyu neexul donc waa loolu moo tax lan moo la may coowul safar parce que bu at mi teroo wala bu weer bi teroo rek ñëpp seen xel dina dem ci safaru Balla Gaye numéro 2 te yaakaar naa am na mbër yu koy def mais am na ñu ko deful lan moo la may nga bokk ci coow loolu. waaw xam nga ñu ne yaroo ci keppaaru murit Serigne Bassirou Bara nekkoon suma waajur nekkoon suma kilifa nekkoon suma lépp ba nga ku ma ku ma bëggoon la sopp ko ma nekkoon taalibe fi ma yaroo aussi tamit nekkoon kër sëñ Abdourahim Fall ñaari baay Fall am ci murid gi dama cee dama cee yàgg daal moo tax wax dëgg yàlla bu ma gisee nii dara war koo def en tant que murid moo def ko rek waaw def ci cof ci rek. waaw dañ ci cof waaw dañ ci barkeelu. ok euh, fi may ñëwaate balaa yeneen gars yi jël question mooy Balla lan moo ko booleeg Sëñ Saliou parce que ñu bëri dañu yaakaar ne Sëñ Saliou mooy sa sëriñ parce que moom nga ëpp looy waate ka sa wasila quoi. waaw waaw c'est noonu Sëñ Saliou moom moom loolu moom ëpp na sax di ko wax ci ci ci ci micro wala rajo parce que du sax yëg-yëg la bi ma koy wax sax du ma ko tey wala sentiment la boo xam doo comprendre. sëriñ bi moo moo xëy moo def ci ci man waaw loolu moom <laughs> mooy loolu daal. la waaw waaw waaw hmm. mooy loolu. mooy seen tubaab hmm. ban changement moo am ci Balla Gaye numéro 2 boo xamante bi nii fàttaliku na ko mu marqué ko trop parce que 2005 moyen amutoon lu bari amutoon. Hmm. kër taxawutoon oto taxawutoon leneen leneen taxawutoon. ana lan moo changé waat ba ko toogee. boo sante yàlla sant suñu Tuubaa waaw sabab lu rek xam nga jaam ak pexem yàlla ak dogalam tey bu fekkee ne da nga ñëw ci kër gi mu doon zéro nga bëgg fa def dara góorgóorlu rek moo la koy may jàpp naa ne boo ay góorgóorlu am jom am foo bëgg a teg am foo bëgg a xool sa bët yi am foo visé aussi tamit da ci taxaw nekk ci ah, kon ni nga ko tuddee rek 2005 cinq lo laa doog a tàmbali ci wàllum làmb ba 2024 yàlla suturaal nañu yàlla sagal nañu yàlla teral nañu. ba lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko si wala amoon yéene bi. wala yàlla suñu borom defal nañ ko. wala ñu am sax luñ foogul woon suñu àdduna. donc loolu mënu ñu koy lu sant yàlla rek. Ah, gërëmee ko suñu waajur. gërëmee ko ci tamit kilifa diine yi nga xamante ne moo tax jàmm am. ba ay safar di am ay gàmm di am ba lépp di am. donc loolu sant yàlla la rek hmm. moo tax mais sikkar dina am hmm? sikkar dina parce que ku ni safar ni sikkar ak jàng xasida jàng alxuraan gis nañ bernde mën naa am jàng nañ alxuraan mais gisaguñ sikkar waaw waaw lépp benn li yow koy toog a xaar ak di nga <laughs> euh, <laughs> gisee. ba tey dañuy ñëw ci côté investissement. parce que ñun lu ci bëri dañ koy gëstu. Hmm. carrière bu taxaw moo tax nga koy def wala lan parce que dañu gis ne am na ancien gloire yu fi nekk. ba bàyyi bëri ñenn ñi ñu leen di ketal ñenn ñu boo dajee ñoom isaat sax da ngay yëkkati sa teraanga may leen mais informé wu nañ ne Balla am na kër parcelle macha allah am na ko golf am na ko géej waaye ak feneen ak feneen lan moo la inspiré ba nga tas noonu di wut ay kër lan la ko. non loolu xam nga àdduna nit nag booy liggéey da ñaan yàlla def ko am foo def aussi am ay kilifa yoo xamante ne euh, dañ may jàppale di ma taxawu ci lu bëri muy làmb dafay jeex bu làmb jeexee aussi tamit nanga nga comportement ak coono gi la yàlla def tey nga am ko ñeme coono bi ñeme liggéey bi boo àggee nag ba bàyyi làmb war ngaa dundee nag ko digg yàlla dund maanaam maa ngi koy yëg mooy cest war nga sol lu rafet continuer ko di ko sol war ngay war say oto yu rafet war nga mun a yor say kër yu rafet war nga mun a yor say say biens yoo xamante ne lépp loo ci bëgg di nga ko def mais aussi tamit xam nga làmb moom yàmb dafa yaatu xëy na nag ñi ma yàlla jagleel ak man tamit aussi ma nangoote aussi tamit dégg ndigal bàyyi tere parce que xëy na génne na ma ci lu bëri moo tax yàlla suturaal na ma ci lu lay bëri la incha ok question bi ñëpp di xaar mooy que da nga débuté ndoo ak Lac de Guiers numéro 2 2004 2005 ngeen ànd macha allah ci ay combat muy rafet nga yàgg sonn ci ay bisam mu sonn ci say bis ñu dem ban ne coow dafa am te ñëpp bu coow li amee ki ñuy jëm baaraamu tuuma mooy Balla Gaye parce que dañ ne kilifa la biir géejawaay parce que làmbu géejawaay nag bu caaxaan jeexee rek am na foo ko yóbbu am na noo leen jàppalee ñuy xalaat ne lépp coow li yow yaa ko mën a fay pour mu jeex est ce que mën nañu xaar Balla ci xolam ak ni mu ko amee ak ni ko la dëgër amee ngeen def ko pour sénégalais yëpp bàyyi coow tege ci suuf waaw xam nga man ni nga ko waxee rek yow li nga sentir nga wax wala li nga gis wala li nga jàpp ne coow dafay am wax dëgg yàlla jotewuñ dara yàlla xam na loolu yàlla rek moo tax ma sax mbindeef mënul wax mooy tax may fen wala lu dëgg billaahi wallaahi wa taala dara amuñu benn problème te mosuñu am laata muy dem ci am problème bi moom ma fekk France liir mii dama bàyyi fenn doy na ma ci seene paas na ma ko appel vidéo mu wax ak moom paas na ma ko téléphone ma am Mathi Pereira tamit c'est la même chose Abu Boy Bandi tamit noonu donc amuñu problème xëy na aussi tamit nit ñi peut-être nuñ koy gisee la mooy li ma waxoon rek moom la waxaat tey bu santee Modou Lo sant na mbër keroog ba mu ba ko Bécaye Mbaye di wax aussi loolu la wax loolu plaisir la parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokku bàyyi àdduna du neex ba mu bëree ak moom àdduna neex tey ba laa mu boole ñu doon ay mbokk wax dëgg tey boo demee Sédhiou sama kër baay samay kër maam mu ngi fa sama kër maam mu ngi fi mu ngi mel tey fii nga toog nii mooy suma kër maam ci ginnaaw nii mooy seen kër donc jàmm lañuy sekk peut am na yenn wax yoo xamante ne wala ñi ñi di ci wax ak loolu di ci commentaire am dañoo xamul rek mais jotaguñ dara waaw jotaguñ dara mën nañu xaar retrouvaille am pour ñi ciy wax ñëpp mën a noppi Balla Gaye toog comme ni defee publicité ak Modou loo bokk lekkandoo bu ko defee nag waxkat yi xaw waaw bala ngay sax daal ko doon ñun tamit léeg-léeg dañuy duñu du ñu basé wu si nit ñi c'est parce que bu fekkee da ngay basé wu si nit ñi yow ay tooxi dund ngay def parce boo déggee riir rek ne damay def lii nax lii wala damay wax lii nax lii bu yàggee da ngay juum comme yàlla dogal jotawuñ dara ñu sekk jàmm te niñ ko daan sekkee rek lañ koy sekk xëy na jour du ñaax jotam wala temps wala man sama jot sama temps ñun ñëpp ñu gisante waxtaan saabante. macha allah loolu rek moo am ok gars yi ku ci am question mu ñëw ba tey coowal empereur empereur bi day continuer di am. Hmm. parce que dem nañ baam Bambey ci xew saa Touba bi Papis ne empereur lu ñu créé la seen bët lépp ci roi des arènes ngeen ko teg parce que empereur yàggul ñëw boo ko ak roi des arènes quoi mu mel ni yéen li ñoom li ñu wax nanguwul leen roi des arènes. ah non lamb moom xam nga neex neex boo xamante kenn ku nekk li làmb dafa am ay rarité yoo xamante ne tey jii tey bu ma nekkoon des arènes man ñeme ma wax tey Eumeu Sène ñeme na taxaw ne doo sama roi des arènes wala Bombardier ñeme naa ñëw taxaw ne doo sama roi des mais tey bu Modou Lô taxawee tey ne roi des arènes la ñeme naa taxaw ne tey doo roi des arènes mais boo xayma affaire bi ba pare maanaam ci règlement. Mm. pas règlement sax ko sénégalais yi. gisee ba tuddee wax ampleur mhm. ba promoteur bi créé ko am xel bu ma bu baax mhm. te man Bombardier daan na ma deux fois mhm. Eumeu Sène daan na ma deux yaa ngi dégg bu baax ni ma la man ma daan tafaatin Tine deux daan Modou deux fois daan Gris deux fois léegi man ñi ma daan ñëpp tey Eumeu Sène daf maa daan Tapha Tine daan ko Bombardier daf maa daan Tapha daan ko kon tey man ma ñëw daan ki nga xamante ne mooy Modou Lo. waaw non man 3-2 laa. kon bon boo seetee rek boo def analyse comme ëmb doon analyser. Mm. léegi analyser yooyu muy analyser. Mm. xam nga nag boobu jamono jooju moom moo ci ne. waaye jamono ji boo ko analyser nag. Mm. Balla Gaye c'est ampleur. waaw dama seeti ëmb seen. moom mu ne Bombardier moo leen tàqale ci diggante bi am lu fi xewaat sa diggante ak Tapha Tine yow tey booy wax lan nga bëgg wax Balla Gaye c'est le meilleur Modou Lo c'est le meilleur Tapha Tine c'est euh, ay meilleur lañ mais boo boo ni ma la xaymaa nii ni mu demee nii ampleur bi yenn na maanaam. ok ampleur bi mooy première quoi. <laughs> waaw mooy première. kan mooy deuxième position. non man daal sama <laughs> mais mais Modou. ok Modou dafa am question boo xam moom la askan wi di xaar. muy Balla Gaye ku na ni waa CNG dañ ko convoqué bëggoon ñoo xam nag lan moo tax Balla Gaye muy suul loolu daal askan wi ñoo ko yóbbante di ko laaj Balla Gaye bëgg nañoo xam lu taxul suul non ci li nga foog ak li nga xalaat moo tax nga ne wuy suul maanaam waaw <laughs> ah, sëriñ maanaam li nga ak li nga yaakaar moo tax nga ne waaye CNG kenn ku xam ne aussi tamit ñooy responsable képp ki nga xamante mooy lutteur ak manager ak promoteur niñ ma bindee lettre aussi tamit noonu laa leen bindee leeta fekk fekk ma fi wax dëgg yàlla mu rafet amuñu benn problème li ma waxoon wax naa ko man fi may taxawee rek mooy toujours mbër laa boo xamante ne du question que luñ ma dagg amul importance dagg nañ mu lépp loolu du ma ci kaas ñu bëri dangay yaakaar ne sax liñ ma dagg man liñ ma dagg ëpp na plus que loolu yàgg nañ ma ko dagg mosuma ko kaas mais aussi dafa bëri ay jafe-jafe yoo xamante ne kon na ci làmb gis ay xale yoom dañuy bëri ñu dese dara gis am ñoom dañuy bëri pare ñu naan yaa ñu dese xaalis wala tey mbër bi war a bëri en tant que ki nga xamante ne membre CNG nga nekk nekk ci biir riñ bi di xeexak ak mbër bi loolu dafa métti te moom si que mbër am doole te làmb bu ñee làmb mbër tax ñuy mbër muy bëri mbër bu waree dugg ci stade bi jeunes alkaati ñu boole ñoom ñoom ñu am ay problème te loolu dafa war a jeex ci làmb làmb dafa nekk facteur développement man li ma wax pourtant saa kees Reug Reug def nañ ma loo xamante ne làmb moo na ko yar CNG jox ñu ma benn loo xamante sax remerciement la amul dañ ma dóor ci loxo gaañ ma def ma lu nekk pourtant geste bu rafet laa def gis nga mos ngaa gis CNG na ma kaay dañ lay remercier ci attu bi nga def wala nanga mos mosuma yàq làmb donc dafa am ñoom dañ koy xoolaat te làmb wala sport léegi dafa avancé ba mopp nga gis règlement yi bu ñu tegee bii ren déwén beneen règlement lañ teg maanaam dañuy teg bii rek teg fi bee déwén ñuy indiwaat kon donc jaadu na ñoom ñuy gën a saytu saytu yoo xamante ne ay règlement lañu loo xamante ne ci wàllum sport ci lu mun munti doon ñu koy saytu bu baax bu ko defee daal ñun ñëpp benn lañu on est ensemble waaw loolu donc lu ñu jeexal ci CNG ok ok ba ñu ah, baax na de te duñu wax nii non dafa dafa am lu ma bëgg a wax parce que fu mu toll nii ku ne dañ ñii dañ ni seen seen seen seen mandat jeex na ñii nii dese nañ un an kenn ku ci nekk yaa ngi wut sa candidat di teg hmm. ñu bëgg a xam ndax Balla Gaye kàddu yooyu yëkkati woon dafa am candidat moom wala tey jii dafa am ku nekk ci ginnaaw Balla Gaye wala moom Balla Gaye dafa am ambition wu nekk président CNG wala lu xew non moom moom je suis leader en activité mbër laa bëre ci ci loolu laay nekk man xeexuma CNG jéemuma koo xeex maam nit du sàkk boppam koo xamante ne kii mooy falu wala falu parce que man ci li ma nekk laa war nekk bira bu fi nekkee xeerul bu keneen nekkee xeerul mais aussi nañu dimbali ñi nga xamante ne ñooy mbëri teg leen fi ñu war a teg respecté leen jox leen seen gëdd maanaam